actualité oblige affaire Ousmane Sonko ñu accusé ko viole viol euh, ci début mois février bi euh, ci benn salon de beauté bi ñu doon defee benn massage euh, loolu indi coow ci Sénégal lan mooy ci sa jàngat en tant que analyste politique. waaw lu ñu mën jàng lu njëkk moom mooy que accusation bu grave la parce que viol ak menace de mort loolu accusation bu bu rëy la léegi nag euh, xaw na bett quand xaw na bett parce que yaakaaruñu woon que Sonko dina am problème bu mel noonu euh, bu ñu xoolee daal taxawaayam ci espace politique bi depuis bi mu créé Pastef ba tey ji fu ñ ko ràññee daal mooy ci xeexu politique ah xeexu politique défendre Pastef défendre projet am défendre aussi askan bi bon wane na aussi que moom en militant responsable bu am pas-pas bu bu am ambition euh, et euh, dernière élection présidentielle 2019 wane na que am na ñu nekk ci gannaawam léegi nag affaire bi bu mu génnee ba tey ji ba keroog lu ñu mën a jàng lu bees xëy na sax beesul noonu mooy xale pastef ak militant ak seen partisan pastef nu ñu taxawee jàkkaarloo ak police wane na pastef parti la am na am na ñu nekk ci gannaawam am nañu organisation am nañu aussi détermination loolu euh, dafay rappeler rek que tey ji taxawaayu pastef ak euh, Sonko dafay mel ni moom moo remplacer PDS ak Abdoulaye Wade Euh, donc daal euh, force politique la am na organisation am nañu détermination ragaluñu aussi bon loolu aussi jàngat bu bees la parce que kanam bu bees la mësuñu dégg euh, Pastef di def mobilisation bu mel noonu surtout jàkkaarloo ak ak police bon ñetteelu jàngat jàngat bu ñu mën a am mooy sur le plan politique que tey ji Sonko fël na comme leader d'opinion parce que boo xoolee du militant yi rek ñoo ànd ak militant pastef rek wala partisan pastef mais jeunesse bi ñu ci bëri dañu ànd ak moom euh, surtout contexte bi ni mu euh, wax Sonko li mu wax dafa nit ñi dafa dugg seen xel moo di ni dañ koy fexel bon loolu defe naa ñu bëri loolu lañ jàpp muy jeunesse bi muy population bi même acteur politique yi loolu la ñu gën a jàpp ku ñu ngi koy fexel Euh, lii dañ ko tuumaal euh, teguñu ko fenn loolu la pour l'essentiel nit ñi nit ñi jàpp léegi nag affaire bi jeexul bon mooy jàngat bu mu bi mooy mu ngi dem ci yoon parce que su fekkente ne assemblée nationale dem na ba réunir bureau bi ba réunir président commission ne dañuy dem pour euh, taxawal benn commission ñu étudier situation ñu def lever immunité parlementaire Sonko loolu bu mu firnde mooy que ñu ngi dem ci euh, ci yoon donc euh, affaire bi euh, dina nekk affaire judiciaire donc léegi nag affaire judiciaire bi aussi lu xaw a doy waar la lu xaw a doy waar la parce que Sonko as de parlementaire la est-ce que assemblée dina jaar yoon pour ne plainte baa ngi ni ñun lu ñu dégg ak lu ñu gis doy nañu pour ñu lever seen immunité l'immunité parlementaire Ousmane Sonko loolu loolu question bu rëy la euh, est-ce que opposition bi dina ànd ak lever bi wala est-ce que majorité bi dina dina am euh, bañ a am unité euh, en tout cas question la ba ba xëy na assemblée bu demee ba toog dina ñu xam est-ce que réellement dina am unité assemblée bi wala est-ce que majorité bi rek moo nar a def lever immunité parlementaire Sonko Euh, loolu daal euh, mën nañ ko jàng ci situation bu fu mu toll nii. gis nañ ka Karim Wade wala ka Khalifa Sall ñu nekkoon itam ñoom ay opposants yoo xam ni daanaka yu farouche lañ woon ci terrain politique bi tey jii bu ñu gisee ñoom tamit ñu sànq leen. ba génne leen réew mi ci des ndax ñu daal leen di euh, tëj euh, prison bi ñu gisee tey ka ka ka Sonko est-ce que nekkul ni daal euh, gouvernement bu fekkee ne dafay gis benn opposant boo xam ne mi ngi commencé di am terrain di commencé di am popularité dañ koy daal jéem a faagaagal ndax boo ko ci di daal c'est un complot politique. mën na nekk mën na nekk complot politique. parce que nu mu demee nii plainte bi soo gisee su doon rek dëgg-dëgg affaire privée. police du ci duggee nii parce que euh, soo nekkoon par exemple lu ci gën a doy mooy ci lieu privé la amee nekkul kër Sonko nekkul kër jigéen ki nekkul keneen ci espace privé la donc loolu euh, normalement euh, gouvernement bi dafa woonoon gën a dal gën a dal may yoon bi ñu topp yoon bi mais soo gisee ni mu demee ni dimension politique bi sës na parce que dugal nañ ci police dugal euh, surtout gendarmerie police ñëw assurer sécurité ministre de la justice euh, loo xam dugg na ci léegi assemblée ñu ngi koy mobiliser donc dimension politique bi am na ba am euh, donc loolu amul benn werante tey jii dimension homme politique Sonko bi moo jël place dimension citoyen léegi ci noonu mën nañu gis ne que lu daloon xalifa man na dalaat euh, Sonko ni ni mu demee nii. parce que xalifa euh, dañ ko dañ ko téye ñu param param euh, def jugement bi condamné ko finalement bokkul ci benn élection. soo gisee aussi Karim Wade c'est exactement la même chose même bu dee procédures yi bokkuñu créé yi la ñu jaar ci mais en tout cas ni ñu def mobilisation gouvernement bi ba juger Karim tëj ko dafa xawal dañu yàkkamti am na précipitation te cas Sonko bi am na ñu ngi ñu ngi dugg ci précipitation à moins de trois quatre jours xëy na semaine bi bu muy jeex euh, dinañu xam est-ce que Sonko dina dem wuyu est-ce que dinañ ko def procès euh, en tout cas ragal na mu am précipitation pour pour euh, pour pour juger ko condamné ko donc loolu su amee bon lu ñuy gis mooy ngi dem ci élection élection locale wala élection législative wala présidentielle c'est sûr que suñ ko jugé tëj ko mais si pour mu pour mu duggaat ci élection locale wala élection li wala présidentielle day jafe soo soo moytu dina perte ay euh, liberté yi mu yu mu liberté civique ak liberté citoyenne yu mu amoon donc loolu risque bu bu rëy la bon beneen euh, facteur bi nga xam ne euh, moo tax nit ñi gën a ragal loolu mooy que Karim nguur gi dafa yaakaaroon que man na nekk candidat en deux mille dix neuf loolu tax ñu tëj ko Khalifa naka noonu en deux mille dix neuf nit ñi lu ñu gis mooy que dañ ko tëj pour mu bañ a bokk donc Sonko aussi lu ñu ragal mooy que mu bañ a bokk deux mille vingt quatre euh, mu bañ a bokk ci législative mu bañ a bokk ci ci local loolu lu mën a am la parce que boo xoolee tey ji opposition nu mu taxawee pratiquement Sonko moo gën a dangereux comme Karim ni mu nekkoon plus dangereux Khalifa nekk plus dangereux donc 2012 2019 léegi 2024 ñu ngi dem en tout cas risque la pour euh, pour pour Sonko et def naa opposition bi aussi même sénégalais yi bon loolu la ñu loolu la ñu gën a séntu dinañ ko de fexel ba am jugement condamné ko moom tamit du ba mën a bokk euh, ci deux mille euh, deux mille vingt quatre. doyen accusation yooyu nga xam ne ñu ngi koy teg ci ndoddal Ousmane Sonko bu confirmé woo. Euh, lan la ci Ousmane Sonko mën a ñàkk bu fekkente ni tamit euh, accusation yi dara amu ci lan la ci mën a gagné euh, au plan politique sur le plan politique. waaw bu fekkente ne plainte bi gën a ci juge d'instruction juge d'instruction def enquête am ba yaakaar ne am intime conviction que Sonko moo def lu luñ ko tuumaal loolu c'est sûr que image Sonko dina gën a yàqu. Ah, dina perte lu lu bari ci ci confiance sénégalais yi même ci militants yi dina perte confiance fekkent yoon nee na moo ko def loolu loolu moom c'est sûr et mais dina wàññi aussi euh, image am en tout cas sur le plan politique du jarati comme li mu comme comme fi mu tolloon tey ji parce que tey ji mën nañu wax ne Sonko mbër la bon bu am dooleel boo am influence loolu su ko dalee c'est sûr que daf koy wàññi donc mën na perte image am mën na mën na perte crédibilité mën na ko gaañ aussi pour élection yi su bokkul ci élection yi c'est sur que avenir am day gën a dina gën a sombre na gën a euh, lëndëm bon léegi nag euh, chance am mooy que nit ñi gëm nañ ko defu ko maintenant chance dëgg-dëgg bu mu mën a am mooy mu am avocat avocat bi nga xam ne xam na yoon xam na aussi dossier bi loolu avocat mën nañ ko génne su fekkente ne am na procès procès bi nga xam ne c'est équitable justice bi euh, déglu avoca yi. déglu justement est-ce que mën nañ ci xaarandi procès bu équitable. voilà loolu mooy difficulté bi c'est-à-dire su fekkente ne am na précipitation pour juger condamné ko mais loolu mënu ci dara avocat mënu ci dara mais su fekkente ne suivre nañu procédure normal mu am des avocats yi nga xam ne waxtaan ak ñoom sincèrement mu wax leen lu xew ñooñu am seen su ñu taxawee ci procès euh, euh, juge bi mën na mën na mën na mën na setal euh, Sonko ci affaire bi loolu bu fekkente ne moom génn na ci loxo bu set c'est sur et certain que loolu nguur gi moo nar a fabriquer Sonko pour mu nekk candidat 2024 contre Macky Sall donc donc loolu su en tout cas su ci amee ndam yoon bu rëy dina ubbi pour pour Sonko. mais est-ce que état bi dina nangu perte euh, procès bii nii est-ce que état dina nangu perdre euh, procès bii nii euh, pour comme comme ni ñu ko gisee ci yeneen opposants yi chaque instant daal état mooy gagné ba condamné ñi nga xam ne ñooy accusé yi. waaw loolu mooy enjeu bi enjeu bi su fekkente ne Sonko am na avocat yu baax mais su fekkente ne aussi opposition bi taxaw na ñu def lépp pour mu bañ a nekk procès bu ñu yàkkamti loolu loolu mooy chance bi mu mën a am ñu retardé ko euh, procès bi mën a jaar yoon moo am avoca mu am ñu ko taxawal saa askan bi aussi su ci bokkul c'est sûr et certain que su dee moom ak nguur gi mais di day perte comme kalifa ni mu perte woon comme Karim ni mu perte woon donc moom chance bi mu am tey jii mooy euh, moo am en tout cas avocat moo am opposition bi askan bi taxawal ko pour procès bi nekk un vrai procès politique su dee su su nekkul procès politique amul benn bunt fu mu mën a jaar loolu gouvernement bi soo gisee sax euh, ñu noppi ba léegi APR waxul Bennoo waxul kenn waxul ñoom ñu ngi nee teg parce que dañu bëgg yàkkamti affaire bi vide ko ben c' est sûr et certain que lu leen gën a arrangé mooy ñu liquider euh, Sonko ni mu gën a gaawee loolu buñ ko dugalee ci kaso est sûr et certain que euh, militants yi duñ ci mën dara Euh, euh, opposition bi du ci mën dara askan bi du ci du ci du ci mën euh, du ci mën dara. mais au-delà des accusations de viol et de de menaces de mort gis nañ affrontement yi amoon ba ñu yàq des biens appartenant à autrui ak yi demee noonu trouble yooyu daal boo ko gisee yow en tant que analyste yan lañ mën a toppee Ousmane Sonko lu nekkul viol bi. non luñ ko mën a toppee ci yoon mooy que moom biñ ko biñ ko convoqué nee na demul suñu lever l'immunité parlementaire am. dina dina dina wuyju euh, mais dafa ne dafa woo militants yi sympathisants ak askan bi nañu def mobilisation appel à la mobilisation bon loolu bu sa xasee ba am appel à la mobilisation su amee casse rek yow mi woote yow yaa am responsabilité morale bi mais euh, loolu doyul parce que Sonko euh, ba léegi waxul kenn mu jël xeer waxul kenn mu dóor police waxul kenn mu lakk waxul kenn mu def acte de violence dafa ne mobilisation ñu ngi may fexel su suñu suñu amee seen sago dinañ ma tëj dinañ ma jaarale fi Karim jaaroon ak ci Khalifa fi mu jaaroon donc appel politique la def la euh, c'est parlementaire la responsable politique la candidat la mais kooku kenn mënu ko tere wax xalaatam ah donc loolu euh, gouvernement bi mënul dara ci moom wante nag su gouvernement bi aussi euh, su génne par par appel à à l'insurrection comme nit ñi di ko waxee loolu gouvernement bi bu ci duggee rek coow politique la nar a nekk loolu mën nañ fa jaar ba ne Sonko moo provoqué mais pour man bu dee dañuy analyser euh, situation bu bi nga xam ne am na bi nga bi nga wax bi nga tudd sànq euh, gouvernement bi moo def erreur bu rëy c'est-à-dire mënoo jóg nga ne police wala gendarmerie. Euh, gendarme yóbbu leen convocation nga yeewu avant même muy jot convocation bi nga mobiliser police tension bi foofu la jóge est-ce euh, les foules comme période mbas mi ñu nekk mais loolu dañuy dañuy dañ dañ da ngay préparer soo soo xoolee euh, situation Kër Góor gi pratiquement force de sécurité yi amuñu woon benn plan. mais normalement su su fekkente ne décidé nga da nga war a jël disposition au moins au moins assurer la sécurité de la maison de Sonko de dès le matin su fekkee kay décidé nga kenn warul àgg sans la police mais malheureusement dañu bàyyi ba militants yi àgg bon militants yi ci tension la la ñu nekk euh, pour man daal dafa am précipitation sooraale wuñu réaction bi dañ leen surprendre surprise de kenn yaakaarul ne militant Pastef wala sympathisant yi dañuy wàcc ci ci mbedd bi di sànni xeer kenn xalaatu ko donc loolu dañ ko waroon prévoir c'est la même chose aussi même pour assemblée nationale bi di ñëw sa assemblée bu demee ba toog euh, Sonko bu ñu bu ñu dégg ne Sonko day dem assemblée il faut que gouvernement bi quand même nekk un gouvernement intelligent jour boobu lu nekk mën na xew il faut pas que lu leen dal kër Sonko mu dalal leen assemblée nationale su Sonko su ne man su man suba damay dem assemblée dinañ ma déglu mais xëy na militants yi jar na leen dem ci assemblée te kenn xamul lu leen mën a fekk foofu. donc loolu aussi euh, anticipation dafa baax ci ci ci nguur quand même suñu defoon une anticipation su suñu mënoon sax wax ak Sonko la veille ba d'accord ak moom ci kaddu euh, je crois que loolu yëpp euh, loolu yëpp do am mais malheureusement bon dimension politique bi ëpp na doole. loolu loolu moo tax mu am réaction violente des des des jeunes mais soo xoolee <coughs> du <coughs> du kër Sonko rek Casamance à l'étranger nit ñi nu ñu réagir da ngay xam ne réaction épidermique la nit ñi dañu dañu ragal ñu ñu téye ko yóbbu ko prison privé ko liberté am donc gouvernement aussi dafa war a communiquer donc bamtuwaat bamtuwaat même ci euh, assemblée nationale bi il faut que gouvernement communique surtout assemblée assemblée na wax sénégalais yi procédure bi naka la nar a demee ñu jël seen motuwaay su fekkente ne assemblée yëpp dafa war a daje pour déglu euh, pour wala même pour lever l'immunité parlementaire mais nañu seen disposition de sécurité parce que militant Sonko yi kenn mënu leen téye kenn mënu leen téye ay citoyen lañu am nañ droit def manifestation am nañ droit dem assemblée loolu aussi su fekkente ne am na daal une bonne communication xëy na lu leen daloon keroog lu leen dal euh, euh, ci ci jour levé euh, immunité parlementaire bi. merci beaucoup professeur ñu amoon mbégte di la dalal leen mooy sa mot de la fin. waaw merci merci beaucoup maa ngi lay féliciter di la remercier bu baax a baax xam naa ba beneen yoon te incha allah merci.